ba mu dem seeti keneen ku dul waa APR noonu la ko yéen kaay gir wàl fu ko tëjee xëy fësal ndax gis ne bés bu yàlla sàkk mm-hmm. dégg ay responsable yoo xam ne ngi fare ci parti bi yu génn kan di koy attaqué tax yéen kaay gi xëy tey jàll si amal taxaw seetlu léegi aussi loo xam yéen kaay gi xëy xëy ko fësal tey mu Ismaïla Ismaïla Madior Fall ne euh, yéy na yàbbi jëmale ko ci euh, euh, troisième maanaam report élection présidentielle yi di ñëw bu ñu sukkandikoo nag ci Ismaïla Madior Fall dafa nekk juridiquement lu xaw a lu jafe def la noonu la ko yéenekaay gi di Walf Quotidien xëye fësale ma ngoog euh, yéenekaay geneen Sud Quotidien waaw yéenekaay gi Sud Quotidien Abdoulaye dafa xëye fësal lu ni mel waxee tamit ci coow li nga xam ni Euh, moom la ñuy nemmeeku jamono ji ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar gis nañ ne jamono ji ay kàddu ñu nga jibe fu ne di dal ci kaw kii di Amadou Ba euh, jël na kàddu gi daal di koy jox kii di Jean Charles Biagui jàngalekat la nekk fële ci université Cheikh la ko yéenekaay di Sud Quotidien xëy fësal yéenekaay ne bu fekkente la ñuy wooteek moom ay faux frère la ñu la ko yéenekaay gii di ñi ngay yëkkat ay kàddu yu ñagas di ko teg ci kaw di kii Amadou Ba gars yi ne neexul ba neex wa Amadou Ba mu ngay jëm daal xam dana métti moom a euh, marqué histoire noonu la ko yéen kaay gi di le quotidien xëye fësale hmm. moom jàpp ne ngir mu nekk président de la république daanaka lu mu waajal la ba noppi Euh, opposition bi jamono ji dañoo am ak matt gu des si ñoom man dañoo dese matt mm-hmm. waaye dafa jàpp ne Sénégal moom fi léegi ñu ngi dund histoire yu ci mel ni Mame Mbaye Niang Mame Mansour Faye Sénégal kon du jóg ci sous développement nu ñu la ko yéenekaay gi di la quotidien xëy fësale 24 heures lam ñu dikkee yéenekaay gi di 24 soit ci élection présidentielle 2024 yi ji dëgmal ak ñi nga xam ne sàkku ngir ñu reporté ko Boubacar Camara kenn la si ñoom moom nag mu ngi indi ay leeral di wax ne ne Euh, report bi nag bu fekkente ne am na lañ ci jubbu maanaam li nga xam ne ni mooy li ci gën a fës mooy ñu encadré ko mm-hmm. waaye nekkul report nii joxaat président rek muy am doole ju ko neex noonu la ko yéen kaay gi di 24 heures xëy fësale yéen kaay gi xëy dellu suñu naataango Pape Sané bi nga xam dañ ko placé su en garde à vue euh, yéen kaay geneen source a UMS ñi ngay artu Amadou Ba ndaje mi nga xam doxoon seen diggante occasion la woon ci ñoom borom rob yu ñuul ñu daal di artu ki nga xam moom moo di eh, eh, Amadou Ba xamal ko de ko eh, keroog ju saba si fay bu mu àttee jox digal ngir ko ñu boole mhm. ñu delluwaat Ousmane Sonko ci ci liste électorale yi waa ICAS dañ ko woo di ko déglu mhm. loolu nag lañ jàpp ne dëgg du yoon ba tax ñu sàkk si lu mel bañ a amat ci noonu la ko yéen kaay gi source ak fësal yéen kaay geneen direct immigration clandestine la wax wax ne Sénégal jamono ji dafa mel daal ab ab ab gàll guy. Mhm. ab gàll guy suux. kenn ku ne da ngay tëpp jëm ngir jëm sa sa bopp moo tax Sénégal jamono ji xale yi ñu si bari si ñoom ñu ngay gàddaay utili fële ca Espagne yéen kaay gi moo xëy dal sa fësal loolu yi. fës na ci critique. waaye yéen kaay gi a lu jëm ci wàllu immigration bi ana kan mooy responsable di critique xëy fësal. yéen kaay yi geneen président Macky Sall ma ngay joxe nag ay miracle maanaam ma ngay jox ay solution yoo xam ne jàpp nañu bu ko defee amaana lu jëm ci migration bi dina doon luy saafaru loolu kon mu ngi koy fësal ci tànk nemmeeku yi mu ko amal jamono ji fële ci duwaanu Kédougou lépp kon mu ngi ci yéene kaay gii di lay faw Le Soleil génnagul Kédougou euh, Kédougou googee moom président Macky amal na fa ab conseil nee daal diggante 2024 ak 2026 daañu fa dugal lu ci toll ak juróom benn téeméer milliards ci suñu koppar lépp nag mu ngi aju ci ay fukki mesure ak juróom yoo xam daanaka moom la fas yéene dugal ci dëkk ba lu jëm nag ci mesure yooyu la yéen kaay gi la Soleil xëyitante tey ji daal ci amal ab taxaw seetlu taxaw seetlu le mandat tey ji la am ñeen fukki fat ci biir suuf buggaan gi dane nag becc na ab la ab këyit mhm. di indi ay seede jëmale ko ci soxnaam si le di ko delloo njëkkal di ko kañ ci taxawaayam ci wetam lépp kon mu ngi ci yéen kaay gii di la mandat eh, yéen kaay geneen tribune waaw yéen kaay gii di la tribune ci la xëy dellu si waat ñeent fukki xam ne eh, mhm. eh, na ko àdduna Bougane Gueye daane muy borom kër ma ngay indi ay seede ci moom am na daal ay kàddu yu am solo yoo xam ne daal yëkkati na ko soxnaam mhm. bu ñu ko bëggee am daal nañu xool yéen kaay gii di la tribune tribune euh, stade wax ci match euh, éliminatoire coupe du monde bi nga xam moom la ñuy waajal Sénégal ak sud sud sud Soudan du Sud mhm. ak Sénégal ak Togo fu mu tax nag mu koy waajal bu baax a baax carreau d'entraînement yi nag amal nañu ak a présenté wu noonu la ko yéene kaay euh, Ama Baldé la ko yéene kaay gi xëy a xaw waa Pikine moom laa na la moo leen dal jamono ji Pala Mbeng nag a sauver Pikine mm-hmm. Abdou Bakhoum moom njukkal ci seen taxawaay Euh, Sa Thiès nag nee na mu ngi xaar ci diggante Modou Ama ak Mboy Niang ku ci daan rek moom noppi na ngir jër la mhm. Siteu nag war a jàkkaarloog ki nga xam ne ni moom mooy de Guiers numéro 2 ni mhm. ak Lac de Guiers numéro 2 ni waaye yéen kay gi dafa xay samp laaj bëgg a xam est-ce que Siteu mën na dara ci Lac de Guiers numéro 2 noonu la ko yéen kay giir sunu lamb xëy fësale donc euh, Ba euh, abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci